viol ak pédophilie nekk nag ay jëf yu ñaaw yu ñu faral di nemmeeku fii ci Sénégal ñenn ñi sax dem ba teg ci di faat bakkan ngir xeex yooyu la ñawteef nag ñi teewal askan wi ci pencum ndawu réew mii di asamble nationale daldi nañu woote loi boble di criminaliser lii di viol ak pédophilie mu mel ni rekk ay daan yu mel ni giiru dundu kaso mën na ci fekk ñiy def yooyu la ñaawteef ba tax na rekk askan wi joxe nañ ci seen xalaat ñu teew lu kàddu yi. Euh, ni ma ko ni ma ko jàngatee intéressant na baax na parce que dañoo gis suñu sœurs yi li ñuy dañoo vite viol yi dafa bëri daal viol verbal physique et tout kon tey bu ñu jëlee loi boobu promulgué ko ci assemblée man dama ci content trop trop trop parce que j'ai vu plusieurs cas yi nga xam ni noonu la daal te tamit dañoo nëpp nëppal bi ci réew mi moo bari. surtout dans les familles da ngay gis koo xam ni tontoom wala nija euh, papaam raqu papaam et tout donc ko violé ñu koy nëpp nëppal alors que xale bi tey xamoo conséquence yi mu ko mën a répercuté dafa bëri ci moom da koy topp ba à vie tey da ngay am na xale yu jigéen yu bàyyi tey jii bëggatuñ gis góor ba wala ragal nañ góor ndax lan viol bi ñu subir et tout loolu daal suñ ko appliqué dinañu dina dina ma neex trop franchement parler. non loolu moom dama siy kontaan moom c'est parce léegi jamono ji loolu noonu moo ko yàq. xale yu ndaw du ngay gis ñuy am ay doom fii xama nga ba noppi en plus amuñu tamit lu ñu leen dundalee moo tax boy yu si bari nekk si mbedd bi di taxawaalu loolu man d'accord naa si quoi te it du ñu téye xale yu jigéen yi seen parent yi tamit du ñu téye leen c'est parce que góor ñu si bari jigéen ñee leen yi fekk. Et concernant la pédophilie, pour moi, 10 ans, 11 an et plusieurs années de prison ne, ne suffisent pas. il faut les condamner à mort quand même. Hein. Selon moi, il faut les condamner à mort. Parce que la pédophilie ou l'homosexualité, bon, en Afrique, euh, c'est pas pardonné. On ne va pas l'accepter et voilà. Même si je ne suis pas sénégalaise, c'est comme ça. Même chez nous, c'est ça. waaw loolu moom dañ koy rafetlu ren ndax violation yu jigéen moom baaxul waaw dañ ko maa maa ngi dégg sax ñu naan xam nga euh, peine de mort lañ ci def xam nga naan waaw perpétuité waaw loolu baax na loolu baax na day tax ñu bàyyi violation bi rek ndax violation moom vraiment baaxul ndax jigéen dañu ko war a sutural jigéen moom mooy suñu yaay xam nga waaw loolu moom amoon li ma siy wax. loolu moom baaxut baaxut kuñ si jàpp rek nañ la pervertir rek waaw waaw pour ñu mun koo arrêté daal. loolu ñu wax moom man de ànd naaj waaw parce que magum jëmm saa yegg ci ndaw lu tuuti ah yàqal ko àddunaam ah, kooku moom waxuma la waxuma la avine waaye takk tek sax ñëpp jàkkaarloo yow ñu. def la li war ci yow mu jeex takk loolu moom warul ci kenn muy nii ci jullit ñii ci ci ci chrétien ñëpp a ci am amul benn religion bu ko naw luñ ci appliqué rek man ànd naaj. ñenn ñi nag jàpp ne viole du góor kese moo koy def waaye ñii di jigéen ñi tamit am nañ ci part de responsabilité. les les les hommes les, les hommes aussi sont victimes de viol les hommes sont victimes de viol. Euh, Et ça, ça devient de plus en plus fréquent chez nous. Et souvent, les gens disent euh, les femmes sont violées, les femmes sont violées, mais aussi les hommes, qu'on le sache. Et ils doivent euh, aussi voter des lois contre ça. Et on ne doit plus se taire, en fait, concernant le viol, et que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Tout le monde a droit à une justice. Ouais. loolu moom tamit am na parce que damay xool sama moroomu jigéen ñi comme seen soli euh, accoutrement bi déjà rek viol la parce que cër yi nëbboon démb nëbbatuñ ko léegi seen accoutrement mooy loolu léegi lépp la ñuy wane te góor tamit góor rek la mën a doon daa phrase boobu tamit parfois daf may metti mais tamit góor dafa sensible kon damay wax suñu mbokku jigéen ñi ñoom ñu ngi agressé góor ñi nañu xoolaat solin yi di xoolaat jëf yi ñu xoolaat waxi ni ndax àdduna dafa gudd tànk te jigéen bu ne jigéen nga te bu yaay bu nekk tamit boo sañoon da ngay jur doom bu baax te doom bu baax bu nekk tamit boo sañoon da naan sa yaay moo fi gën kon nañ xoolaat solin yi ak accoutrement bi. ñenn ñi it jàpp ne Sénégal dëkkub règlement de compte la bëgg a xoqatal nit ki dina tax nga tuumaal ko bañ tëj ko giiru dund. maanaam balaa ñu koy kii appliqué nañu xool parce que tamit Sénégal fii ñu bëri ñu ci kaso bi tey dañu leen tuumaal dugal ci kaso bi kon donc tey balaa ngay acquitter loi boobu dañu xool ci ci kii bi ci suuf parce que Sénégal fii dañuy tuumaal nit viol jël yóbbu kaso te loolu gis naa ne bëri na ci dëkk bi man gis naa ci ay kaakaa yu bari kon loi boobu man affairement baax na kontaan naa ci mais nañu xool bu baax balaa ñu koy appliqué nañu xool ñuy tuumaal bu ko defee ñu mën a ki parce que ñu bëri tuumaal lañ yóbbu foofu te moom waaw man du ma ne baaxul ko baax na pour man mais nañ xool bu baax a baax balaa ñu koy appliquer parce que tuumaal yi bari na ci dëkk bi da xool benn neexu la wala jikkoom neexu la nga provoqué ko tuumaal ko yóbbu ko prison nga faa tëdd ay ati at loolu vraiment nekk loo xam ne lu garaaw la. no loolu noonu tamit luñ war di lijjanti la maam ñu si bari tamit ñu ngi si kose bi te defuñu dara di ñuy def nag ñu ngi def mais am na ñoo xam ni wóor na yàlla defuñu dara mais dañ leen di jàpp leen comme noonu maam nga dem fenn di liggéey. yaa yaa nga xam am xaalis foofu noonu xam nga ñun ay góor kese lañ fu ñu dem ñun dañuy daan suñ doole dañuy dóor waar mais jigéen saytaane la nga jël sa doom yebal ko si néegu góor gi xam nga mu def yenn affaires yi nga yuuxu jàpp kooku tej ndax lan xaalis mais jaru ko nañ xoolaat réew mi xam nga du ñu xool nan la ñuy dundee defaraat suñ bopp quoi moo loolu noonu mooy du du mooy yoon quoi. ah ñooñu moom dañ leen a war a rey man ñooñu jàppee mu leen sax ay doomu aadama. c'est parce que soo mënee tiim sa moromu doomu aadama moom rey ko tey ko moom non man jàppewuma la nit quoi boo jàppaatee que ne nit da nga koy rey kooku moom tëjal. li ñuy wax dëgg la parce que li ñuy wax kii on est dans un pays où on applique la loi du talion c'est-à-dire œil pour œil dent pour dent et je suis parfaitement d'accord pour cette loi mais tamit li nga wax dëgg la. parce que da ngay gis nit ki tey neexu la nga ni voilà dem sa doom dem yàqu ñëw daane sama raqu papa moo a violé wala sama nijaay moo ma violé ñëw collé ko pour lan sa yaay de la ko sant ndax am ci xaalis mais loolu tamit war nañ ci bàyyi xel mais su boobaa pour man hôpital lañ war a dem dem ci médecin bi ñu xool ba xam bu ñu amee preuve à l'appui nañ xam bu au cas au contraire dañuy tëj yaay ji tëj xale bi yóbbu ko prison des mineurs ndax am na. askan wi nag rafetlu nañ bile loi waaye ñenn ñi gis ne bile daan mën nañ ko utiliser ngir tuumaal nit lii nag lañ leen indi loon ñu leen di jox digg daje beneen yoon ci yeneen itam. honorable député je peux même penser que il a pas eu vraiment de questions qui ont été posées mais plutôt des observations qui ont été faites et des suggestions bien entendu nous avons montré, et ce, sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce travail, ce projet qui est soumis à votre, qui sera soumis à votre vote très bientôt, soit fait de façon consensuelle. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec la commission des lois. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec euh, ONU Femmes. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec toute personne, toute personne qui serait à même d'aider à ce que ce texte soit un texte consensuel. Nous avons voulu qu'il soit consensuel, non pas par faiblesse, mais parce que nous avons conscience qu'il s'agit d'un texte de société. Il s'agit d'un texte de société, un texte qui va nous marquer. Monsieur le Président Soral est là aujourd'hui, dans 100 ans, dans 20 ans. Je, peux, je, je, je prie pour qu'il soit vivant il ne sera, sera certainement pas là derrière moi. Je suis à mon âge. Dans 20 ans, je ne serai pas gardé sceau. Ça, je le sais. Mais je sais que certaines lois demeurent. Certaines lois dites de société. Et nous avons ici, quand on parle d'un jour particulier, ce n'est pas du verbe. C'est parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui, on aura député devant vous la possibilité de marquer l'histoire. Parce que tout simplement, vous avez entre les mains un document qui va façonner le destin de vos concitoyens, le destin de votre société, le futur et le présent de vos enfants. Donc, euh, je remercie les honorables députés, globalement. J'ai dit que aujourd'hui n'est pas jour de polémique. Et je vais me faire violence parce que vous savez, c'est difficile pour un avocat de ne pas aller à, confront à la confrontation. Aujourd'hui, c'est un jour de consensus.